Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, messieurs les ministres, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter des résultats excellents, élogieux, qui resteront dans l'histoire du Sénégal. Comme je le souhaite aussi, comme ni ma koy ñaanalee président de la République bi fi toog parce que dama ne bu tardé Sénégal moo tardé président de la République dafa jël fonction 2 avril dem pale président Macky Sall ko ay généraux yoo xam ne amaana ci seen biiru xol ànduñoo ak président de la république bi amaana ay magistrats yoo xam ne ànduñoo ak président de la république bi jàppoon nañu peut-être moom place am feneen la waroon doon ñu dalal ko teeru ko toojal ko maajal ko. lu a loolu constitution Sénégal moo a loolu donc constitution Sénégal nit amul lu mu ci tànn di ko joxal leneen loo xam ne da koy seppi sànni fële te dafa mel ni foofu la ñu toll tey ci réew mi weesuwuñu woon weesuwuñu li fi ne woon lu tax ma wax ko monsieur le ministre de la justice article cinquante cinq de la constitution moo xam ne moo gën a kawi lépp dafa ne premier ministre buñ ko nommee dafa war a ñëw wax ñu fan la bëgg a jëmee réew mi mu ne maa lànk duma ñëw parce que on n'est pas au pays des institutions fortes on est pays des hommes forts et c'est l'homme fort actuelle et donc mu ne duma ñëw président de la république nii dinaa waxtaan ak moom ba fexe mu ñëw ñu ne dañuy jooyanti règlement intérieur de l'assemblée bala muy ñëw mu ne duma ñëw parce que faalewuma leen est-ce que bu généraux yooyu nee woon faale wuñ ko est-ce que bu magistrat yooyu nee woon faale wuñ ko nee faalewuñu résultat élection yi est-ce que boobu réew mi dina nekk ci jàmm jàmm réew mooy tënku ci constitution de la république te président premier ministre euh, euh, ki euh, Ousmane Sonko mu ngi jalgati constitution bi président Diomaye di ko ci jàppale loolu lu doy waar la monsieur le président yow xam nga ni yàgg naa bañ a ànd ak yow fii waaye mosuma dépassé ci kàddu bien que taxaw naa fii nag jour ba ñuy voté modification constitution bi ne du fi am waaye dépassé wu ma la mosuma la dépassé ci kàddu te saa yoo jógee ma boo duggee ma jóg parce que institution nga gis nga nit ñi guerre 39 45 Angleterre ba muy déclarer guerre euh, Allemagne ambassadeur bi dafa jël ay këyit ak njëkk ak teraanga dem déposer ko ci Ribbentrop le ministre des affaires étrangères du Reich ba pare ne ko dañuy guerre ak yow nuyu ko ci njëkk ak teraanga dem reyante bi commencé cooki cooki fin mun na am mu ànd ak élégance waaye président de la république bu newee day yónni projet de modification constitution bi yow suñu président assemblée di nekk suñu kilifa bien que d'accord uma voté lu ma la waaye boo nekkee président de tous les députés président bi nekk président de tous les sénégalais yóbbee ñu ko par communiqué porte-parole am yabeel weesuwul loolu nañu nangu te même député yëpp cent cinq cent soixante cinq députés de la république dañoo ko roon bañ man ba ma nekkee président Macky bu ma d'accordul damay ne d'accorduma loolu moo ma yóbbu woon ci li ma yóbbee maintenant comme lu ñu fi indi mooy comme lu ñu fi indi mooy suppression la ñu fi indi mooy suppression ma sànni ci ñaari kàddu naam bokk naa ci ni woon signé dañu war a supprimer HCCT ak conseil économique social waaye ñun ñëpp dañu jàpp kooroon poson bu gën a yàqu ci institution yi mooy fonds politique yi nga xam ne président premier ministre dafa ni day corrompre c'est pour corrompre te gis nañu effectivement taxaw naa fi nii am na koo xam ne dafa jaay ay liste réew yi dem ñu jox ko enveloppe xamuñu lu nekk ci enveloppe bi waaye njort nañ la ca nekk. corruption bi mooy jël kenn pour def cartel politique jox ko représentant du président la république ñenn ñaa ngi ne cinquante millions la ñenn ñaa ngi ne quarante millions la pour caser du tout politique mu nga ne damay yàq yàqanal bay tudd ay machine café mais Sénégal fii ba Fuuta fii ba Casamance foo romb làmp yi ñu ngi tàkk bëccëg te am na agence de l'économie de et la maîtrise d'énergie malgré tout parce que man li ma waxoon daf ma tënk du waxu keneen moom a tënk du jëfu keneen moom a tënk sama wax moom ma tënk naa woote nag